yu sel te kawe jëmale ko ci kilifa gi toog suñu wet di Cheikh Mouhamadul Bachir Abdoul Ibn Abdoul Khader Mbacké di porte-parole u général des des Mourides sëriñ bi ñi ngi lay nuyu bu baax ci suñu tur waaye ci tur délégation bi nga xam ne moom lañ ñu àndal fii ci ci Touba di dëkk bu sell nga gis leen ñuy ay directeur ay chef de département ay chef de service ak li ëpp ci personnel bi nga xam ni ñooy yëngu ci li ma ci tey ñoom ñëpp maa ngi lay jëbal maa ngi lay jëbal seen nuyo ak seen seen ziyaara waaye li jiitu nag nga may ma ma beral nuyoo kilifa gu tedd gi Cheikh Mamadul Muntaxa xalif général des Mourides di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan may ko wér ba naal yi nga xam ni moom la sumb ci dëkk bi ak ci réew mi yàlla may ko mu yàggale ak jàmm ak salaam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga am nag mbégte lool ñëwaat fii tey ci sa kër gi ndax li ñu yëkkati dafa yitteel dëkk bi yitteel borom dëkk bi yitteel ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci dëkk bi muy wàllu assainissement loolu moo tax son excellence le président de la République Macky Sall ci deux mille vingt deux mu joxe ndigal génne benn financement boo xam ne état du Sénégal moo ko génnee moo ko joxe ci budget lu war a toll ci quarante cinq milliards dugal ko fii ci biir Touba ngir jàpp ak régler. problème yu bëree bëri yi nga xam ne moom la Touba am ci wàllu quarante cinq milliards yooyu lenn li mu ngi jëm ci ndox mi nga xam ne mooy jóge ci taw bi ak li nga xam ni mooy ball di jóge ci biir suuf si liggéey bi tàmbali nañ ko danaa ci ñëwaat léegi leneen li ci des mooy li ñuy wax assainissement eaux usées mooy ndox yi nga xam ni dañ koy jëfandikoo ci biir kër yi te loolu tam mu am lu mu laaj ci wàllu liggéey ak wàllu doxalin loolu itam liggéey bi tàmbali na ñi ngi ci beneen pàcc bi nga xam ne itam pàcc bu am solo la muy assainissement wu université Cheikhul Khadim bi ngi ngeen xam te ñu xam ñun ñëpp fi ko xalifa bi teg yitte bi nga xam ni moom la ko xalifa bi jox président de la république Macky Sall joxe ci ndigal nee na ONAS jël en charge lépp lu jëm ci wàllu assainissement université Cheikhul Khadim boobu. Mhm. donc loolu sëriñ bi moo doon suñu ay tànk ñëw ànd ak équipe yi xool li fi nga xam ni foofu la liggéey bi toll. contexte bi nag di contexte su nawet waaye di contexte surtout màggal gu mag gi nga xam ni moom la ñuy waajal ci semaine yi ñëw. te ku ne xam na ni ñi nga ñiy jóg ñiy dugg ci biir dëkk bi jóge bitim réew wala jóge ci biir réew mi di ñëw ngir fekk bis bu tedd boobu lim bu bu takku la lim boobu nag bu ñu bu teewee jaadu na ñu mettre dans bon condition fexe ba ndox mi nga xam ni moo jóge ci taw bi ñu mën koo mën a drainer mën koo yóbbu ci barab yi nga xam ne fa la war a jëm loolu moo tax ñu bàyyi suñu yite yëpp mm-hmm. ah trois semaines yu ne ñu ñëw fi benn yoon wala boog weer wu ne ñu ñëw fi benn yoon ànd ak équipe bi saytu ko xool fan la liggéey boobu toll. Euh, sëriñ bi ma bëgg a dalal sa xel rek wax la ni la président de la république ak premier ministre ministre de l'eau et de l'assainissement ak ministre en charge des inondations moom itam mu fi ñëw tout le temps di fi ñëw ñëpp di ko gis. seen yéene ak instruction yi ñu jox ndigal li ñu jox mooy ñu fexe liggéey bi gaaw mucc ayib te war mel li nga xam ne noonu la war a mel. Mm-hmm. foofu lañu teg suñu tànk ñu itam bu dee ci wàllu bassin yi gis ngeen conduite bi nga xam ni moo jógee Ngiraneen te war a jëm Ngélémou muy conduite deux kilomètres trois cent defar nañ ko ba mu yegg. daanaka li ci des euh, fukki mètre la loolu ci fan yu néew mën nañ koo yeggale te li ko xawoon a gàllankoor sax sëriñ bi mooy bassin boobu xam nga ni am na ay mbokk yu fa dëkk ñu war leen waroon leen fay ngir ñu libéré locaux yooyu li libéré barab boobu yàlla suñu borom dogal na ni ñoom ñëpp tàmbali nañ di leen fay ci fan yi am nañ yaakaar ni balaa yàgg bassin bi dañ ko mën a libéré bu ko defee ndox mi mën faa mën a mën faa mën a jaar loolu mooy lii jëm ci wàllu ngelimu bu dee ci ñaari bassin yi nga xam ne daaw gisoon nañu coono bi ñu indiloon muy bassin Pofdy ak Daaru Rahman muy ay bassin yu mag a mag yoo xam ne lu ci ëpp ci ndox mi jóge ci biir dëkk bi foofu la jëm lii Kër Ñang lay jóge lii ci yeneen barab lay jóge bassin yooyu jaar naa fa gis nañu liggéey bi mi ngi avancé bu baax a baax baax a baax sëñ bi ànd naa fa le maire mi ngi nii toog am naa yaakaar ni ah liñ ci bëgg danañ ko ci danañ ko ci mën a am. Mm-hmm. Euh, bu dee bassin bi nga xam ne mooy Kër Ñang muy muy bassin bi bi gën a mag ci dëkk bi nga xam ne daanaka ndox yi baree bari yi jóge ci biir dëkk bi foofu lay ñëw joxe woon naa ndigal ñu yokk capacité de pompage bi maanaam li nga machine yi nga xam ne ñoo koy ñooy jële ndox mi ñu yokk leen fi mu nii tey capacité bi fa nekk. war na jege cinq mille cinq mille mètres cubes bu ko ëppul jege na ko entreprise ña nga fa di liggéey jaar nañ fa léegi monté nañu fa ñaari bassin wu mille mètres cubes heure yoo xam ni ndox mi bu ñëwee mën nañ koo yóbbu ci ci bu gaaw a gaaw mu dee ci fii ci Touba mosquée euh, xam nga ni sëriñ bi euh, ci biir projet bi euh, état président de joxe woon na ndigal ñu samp fa lu war a ci ñaar fukki forage ñaar fukki forage yooyu seen liggéey moo doon xëcc napp biy jóge ci suuf ndox mi jóge ci suuf ci suufu suuf si di ball da ko pompe forage dañ ko def li ñuy wax rabattement ba ndox mi dem ba ca sore sore sori bañ a génn forage yooyu yëpp ñu ngi dox fi ñu toll nii ma lay bëgg wax ni tey incha allah fas nañu yéene installé waal installé waat euh, ñaari forage yu bees benn bi ci résidence euh, euh, Cheikhul Khadim danañ bu ma jógee fii léegi foofu laa fas yéene dem beneen bi ci des ñi ngi koy installé ci kër Serigne Abdou Lahad Mbacké loolu yëpp ay instructions yi président de la joxe la ngir ñu mën a def magal gi ci jàmm ndox mi bañ a génn wala bu génnee tam ñu am fu ñu ko mën a jaarale mu dem li nga xam ni foofu laa jeexale mooy buntu mairie bu bu bu Touba nga xam ne kuy yeewoo Touba xam nga ni barab la buy buy buy taa monsieur le maire loolu jaaxal na ko lool démb yónnee nañ fa benn moto pompe bu mag bu mille cinq cent mètres cube heure ku jaar ci buntu mairie bi da gis moto pompe bi foofu yooyu bariwul ci ONAS bariwu fi donc indi nañ ko ci ci Touba ci buntu maire bi mu war a war a mën a war a mën a pomper ndox mi incha allahu taala maanaam bu tawee ci diiru fanweeri minute jëm waxtu ñu ŋàcc ndox mi mu dem ci station bi nga xam ne moo nekk ci ci kanam danañ ko booleeg flexible boo xam ne mooy téew bi muy jaar lu war a tolloog ñaari kilomètres yaakaar naa ne démb bi muy ñëw ànd naag cent mètres li ci des danañ ko indi ci semaine bi liggéey bi tàmbali incha allahu taala loolu yëpp nag sëriñ bi li li tax ñu def ko rek mooy teg ko ci ndigal président de la République ndax ku ne xam na moom fi mu teg Touba ku ne xam na tam investissement yi nga xam ni moom la moom la moom la def ci biir Touba te ndigal loolu moom la ñu sant moom la ñu jox jaarale ko ci premier ministre ak ministre yi nga xam ni ñoo nekk ci ci ci ci di yëngu ci ci wàllu woowu kon ah xanaa li des moo ñu ñaan rek sëñ bi ñu ñu ñu ñu sàkku sa ñaan mm. yàlla may ñu nawetu jàmm ndax moom lañ bëgg nawet nag day ànd ak ndox day ak ndox mu bari waaye li ñu bëgg daal mooy nga ñaan ah effort yi nga xam ne ñu ngi koy def mu néew mu bari mu barkeel ba nga xam ni incha allah ren màggal gi dinañ ko mën a màggal ci jàmm jafe-jafe yi wàññeeku lool. waaw ah, ñiy wax daal ni am nañ yéene ci liggéey bi eh, jox nañu ci ndigal waaye ndigal yi dafa tombeek suñu yéene kon lépp loo xam ne mën nañ ko dinañ ci xar suñu tànk. incha allah ba mu yegg ak euh, ak jàmm kon maa ngi yemale kàddu yi foofu di wax sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di la seeree rek Mbakke li président Macky Sall yéene ci dëkk bi jaar ko ci premier ministre Isaaxa Diop ba mu ñëw ci moom Abdourahmane euh, euh, kii toog tey di Mamour Diallo def na ci lu kenn deful lu kenn deful li mooy da koo fekk ak Cheikh Mamadou Mountakha muy baayam sëriñ bi bëggal ko boppam lool. sëriñ bi yéene ko jàmm lool di Touba di Poroxaan fu mu nekk directeur Mamour Diallo dem fekk fa Cheikh mun Mountakha ba am tawféexi Cheikh Amadou Mountakha tawféexi Cheikh Amadou Mountakha moo la may lii ah seede yàlla dëgg la de tawféexi Cheikh Mountakha ji nga am moo la may liggéey bii ñu la jox Touba nga takku ndigal gar ci sa bakkan sëriñ Touba dana la dimbali nag ba nga def ci lu kenn deful ba pare mu jox la bàkk wi lépp sëriñ bee Serigne Touba képp moo jar a liggéeyal directeur liggéeyal Serigne Touba nga nu mu mel faraasu nuroo naag yàq waaye ngóoba ko weddi yaa ngi liggéeyal Serigne Bamba bëgg président Macky Sall am ci ndam premier ministre am ci ndam waaye yow da nga ci am ndam loo foogut mu tombeeg nag bisu Cheikh Abdou Khadir fasal te indi say bagaan teg Cheikh Abdou Khadir mën na lu ne jëlee na naa Serigne Cheikh mi nga xam ni tey moo ko woote ak jëmm ji mujj ci baayam waaye man bisub sëñ Abdou Khadir lu ci waaye bëgg ma defal la ko mën naa ko te naa ko def maa ngi jox kàddu gi sëñ bi mi ngi delloo nuyoo Mamadou Mamour Diallo directeur général bu onaas ak mbooleem délégation bi nga àndal ñëpp ne bàyyiwuñu kenn ne di leen sant bu baax ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne Cheikh Amadou Mountakha kat mooy borom liggéey bi non ñu ngi yëkkati kaddu ci turu Cheikh Amadou Mountakha dina yóbbanteem nuyoo ci président jaar fi ci jéego yi nga xam ni def na ko mu yitte yoo xam ni ne moom mii toog Cheikh Amadou Bassir moom la sëriñ bi yónni woon ci président la république 2008 ne président def ci teeg taxawaay bu mat ba liggéey bi tàmbali nii kon ñu ngi koy ci sant ci turu sëriñ bi ne di la sant yow itam Mamour Diallo ci yitte ji nga ci def ndax loolu kat bettu ko ci yow ndax xamoon nañ la lu jëkk lii nee nga am ak Cheikh Mamadou Mountakha wala re ba mu nekkagul sëriñ tuwa saa soo ma say jógee ci moom dem ci sëñ Muntaxa ba sëñ Muntaxa ràññee la bu baax ne mu xam sa diggante digganteeg sëñ Muntaxa kon nag bu yàlla defee ba liggéey bi yegg si sa loxo nga defaat ci taxawaay bi nga ci def kon loolu béttu ko kon dañ la si sant di la gërëm di la ñaanal itam liggéey bépp yegg te yàlla defal la ci nam nee la ca desit nag mooy la mu la doon waxaat ci biir rek mooy jéego yi nga ci def bari na waaye dëkk bee rëy nag nee yow wax nga ko léegi ñaar fukki bassin nangam ñoo ni ci dëkk bi yuy ndox te day mel na ñett wala ñeent lañ ci defagul kon day mel ne bu doon téeméer weesoogul fukk daanaka kon des na lu bari te assainissement bi bu amul ci dëkk bu yàggee dëkk ba daanaka day yàqu ne boo seetloo tëli yëpp a yàqu fi ne te loolu li ko indi mooy taataa yi ak nab bi yëkkatiku kon nag loolu def ngeen ci jéego yu rëy ba ñu bari na mu diise woon ci ñoom wàññiku na waaye des na nag ay at yaatu na ci dëkk bi sax eh, ne boo weesoo këram gii rek balaa mat juróom fukki meetar nab bi yegg si na fa ne kon yaatu na ci dëkk bi waaye am na ci côté yu gën a mittee rawat na fu mel ne ndaamaatu kër yu bari bari génn nañ seen kër kon foofa itam eh, xam naa def ngeen ci yitte waaye lii moom day lu munta xaar te état moom ñaare lu mu bëgg a lijjanti lu mu jamp-jamp mën na ca ami pexe kon ñu la koy fàttali nañ la ko waxee woon ci biir rek ak benn benn mbedd yi nga xam ni buñ ko xëccee ci réseau bi rek nit ñi daañu mën a jàll rawatina booy dugg Touba li ci des nag moom waxal nga ko sa bopp mooy yéen a ngi ci liggéey bi te jeexagut waaye forage yeeg nab bi daal moo bëgg nañ ku ñu ci gën a dimbali ne du toog ñaari fan ak ñett te mbooloo ñëw fi jambat ko tey dund condition yu métti na nit ku nekk ci biirum néegam ndox ma ni fekk ko ci ba ci kaw lalam dajji karo ya loolu xaw naa dis bu fekkee amoo foo dugg nag dana xaw a mitti kon loolu rek lañ ci yóbbante di la santaat bu baax di la gërëm di la xamal ni yitte ji nga ci def xam nañ ko nee ñetti semaine yu ne nga ñëw fi te doo yëglu doo ànd ak télévision kon li ngay def dëgg nu ci yow doo woote sax da ngay ñëw ba dem ñu doog koo yëg